te di leen ziar di leen nuyoo fii ci Daaru Minam fii ci kër Cheikh Mouhamadul Bachir fi nga xamante ne bii fii la Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, nekk tey jii njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall fekk ko fi ngir indil ko liggéey bu tedd bi nga xamante ne bii moom la ku tedd ki santoon maam Cheikh Ibrahima Fall yi nga xam ne xam ngeen ne jot njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall dajale lu takku indil ko ki nga xamante ne bii tey mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax ndigal loolu ku ne xam na ne ku tedd ki moo ko santoon ci njëriñ boo demee ci histoire taarix day nettali ne euh, maam Cheikh Ibrahima Fall mas naa bind lettre Serigne bi jox ko ku ñu wax Baye Lamine Diop njaxeer na ko yutal ma ko ku tedd kii ba mu demee na wal bit dem sëñ Baye Lamine na ko damaa bëggoon wax la li ci bataaxel bi ndax boo demee bu la ko ku tedd ki laajee ko koo jox ndax ku tedd ki kat soo ko masaana jox leetar da lay laaj na la luñ ca bind loolu la Cheikh Ibra wax loolu boo demee ci waxtaani sëñ Bay Ngiraan wala mag ñu bëri da nga ca da ko ca déggee boo ko masaana jox bataaxel dana la lay wax na la lan lañ ca wax mu ne boo demee ne ko ndax sëñ na maa tabaski ku tedd ki eh, jox ko ndigal na ko bu ngeen demee leen Ibra Fall ne lu fa na ciy xar na ko dàq indil ma su jógee jullikaay lu mu fa fekk rendi ko loolu mooy ndigal li nga xam ne tey kenn ku bokk ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ko sañar yeew am tabaski tadu da ngaa jox sa sëriñ am tabaski ba noppi amul loolu ndigal la loo xam ne ku tedd ki moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima ci njaareem moo tax nag Cheikh Ibrahima tàmbalee woon ko ci nag eh, di dajale xar yi ci ab lim di ko indil sëriñ bi nga xam ne fii julliwuñ ba noppi dara daawut mën a tëdd biir këram ndax amutoon ndigal ci lu mel loole nag ba mu fi jógee maam Cheikh Ibrahima Fall euh, bàyyi fi Cheikh Moudou Moussa Fall ñaar fukki at yooyu mu fi toog nekk fi xalifa ak Cheikh Ibrahima Fall liggéey boobee dafa daan dajale ji mboolem ci dëkk yi nga xam ne Cheikh Ibrahima ko sañ mboolem ci taalibe yi mboolem ci seex yi ñu dajale dafa nekk lépp yóbbul ko fi nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim noonu lañ ko toppee ba ci tey jii ki nga xam te ni moom mooy Serigne Cheikh jëmm yàlla na fi yàgg lool te wér ren jii rek juróom benn téeméeri xar la indil Cheikh Mouhamadul Mountakha juróom benn téeméeri xar ci xar yu mucc ayib nag xar yoo xam ne ay xar lay doon waxoon naa fi ne bokkut xar yi nga xam ne dañ naan la yeewal baax na booy bàyyi muy nampi déedéet xar yoo xamante ne bi lu mu gàtt gàtt am na ci yooyu million bi dana teg lu mu gàtt gàtt am na ci yoo xamante ne bi six cent yi jàpp sept cent nangam mille lay jar xar yu mucc ayib yoo xam ne boo ko gisee da nga yéemu ci yàlla eh, te du ñàkk di ngeen ko gis eh, xar yu yooyu la Cheikh Mouhamadul Mountakha tey jii eh, nangu ci ndogal ci loxol ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall mooy léegi lañ ko jébbale sëñ bi ko nangu ci loxol boppam ndax kayit bi ñu koy tënk xam nga Cheikh Fall moom lu masaan di indi ci sëriñ bi da ko daan tënk ci aw kayit su ko tënkee ci aw kayit ñëw jébbal ko ki nga xamante ne bi mooy sëriñ Touba Cheikhul Khadim sama borom dogal nag moom bu ko daal di ko nangoo eh, daal di koy daal di jot nag kaddu yi cant yi ak ngërëm yi nga xamante ni bii moo bàyyi ko ci Serigne Cheikh jëmb ci ndaw yi nga xam ne la yabal na leen muy Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng Serigne Saliou Fall Fat Sow Serigne eh, Cheikh Assou Ndiaye mu Serigne Mour Moustapha Fall ak mboolem njaboot yëpp itam Serigne Falilou Fall jëwriñ ni Serigne moo deminta Serigne Moustapha Fall Mbar njaboot gi yëpp ak Serigne Assane moom Serigne Mour Moustapha def délégation ànd ak taalib yëpp ak buntu kër Cheikh Rafal yëpp nag ñëw ngir indi liggéey bu tedd boobu indi ki nga xamante ni mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha إلا الله لا إله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 Jëmb Fall sëriñ Cheikh Jëmb Fall sëriñ Cheikh Jëmb Fall mu ànd rakkam yëpp mu ànd ak rakkam yëpp ak doomam yëpp ak doomam yëpp ak taalibe yëpp ak yëpp waaye ki teew fii nag nga xam ne moo njiital rakk yi waaye ki teew fii nga xam ne moo njiital rakk yi mooy sëriñ Cheikh Fall mii mooy sëriñ Cheikh ñu di wax sëriñ ko wax sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng Baye Assane Fall a ngi nii Baye Assane Fall a ngi nii moom Cheikh Moustapha Fall moom Cheikh Moustapha Fall Serigne Saliou woo nga ne Serigne Saliou woo nga ne Serigne Modou Moustapha Fall moom Cheikh Modou Moustapha Fall Serigne Cheikh Mbacke Fall a ngi nii Serigne Cheikh Mbacke Fall nii moom Cheikh nee moom mii di wax itam ay rakkam ñooy njabootu Cheikh Fall ga mën noo tudd ñëpp nee mënu ñoo tudd ñëpp waaye ginnaaw tudd nañ ñii nag kon Serigne Cheikh nee na ak siyaar bii mi koy defal njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp nee fa boppam nag jiital ca di yeesalaat ak njébbalam di feddiliwaat ak laxasaayam di jaayantewaat bu baax a baax nag fas yéene ànd ak yow ci liggéey bii nga liggéeyal sa maam fas yéene foo teg sa tànk boo geesoo gis ko fas yéene ànd ak yow ci liggéey bu baax a baax ci jiital ki nga xam nag liggéeyu tabaski bii nga xam ni. ndigalul suñu borom la mu jaar ci sallallahu alayhi ñëw ci sunu maam Ibrahima ji ñëw ci sunu maam Jibril ba ñëw ci bokkam yam àndaloon moom la ñuy yeesalaat nee liggéey bii ñu fi indi tey jii juróom benn téeméeri xar la sëñ Cheikh Jëmb Fall nee na xeeb na ko lool waaye pësteef bi ak pas bi ak yéene ji moom rek moo ci am solo te xam naa la mu yéene ci xolam mooy fa am xar taxaw tey ci àdduna mu moom ko jox ko Serigne Touba mi fi toog loolu mooy yéene Serigne Cheikh Jimb Fall kon nee liggéey bii nan ko ko nungul Mbàkke te fulal ko ko te defal ko ci nag ak njéggal ak yërmande ak ndimbal nga xam ne loolu ko ko am rek am nga lépp nee li ñu gën a bëgg nag mooy ñu am sa ngërëm rek bu amee sa ngërëm rek am nan ngërëmul Serigne Touba kon nag Mbàkke nag ñu dimbali. ban am sa ngërëm yow tam Mbàkke ñu lay ñaanal ci darajey sa darajey maam ja Serigne Touba ak maami Serigne Cheikh Jimba Fall ja muy maam Cheikh Ibrahima Fall jataay bii nga toog a Serigne Touba nga yàgg ci loolu Mbàkke te ànd ku wér nag ba lépp loo sémbal sa maam nga àggaleel ko sa bopp mën koo eggaleloo kenn sémb yu bare bari nag ca ànd ak murit yëpp nag ak jullit yëpp nee ñi ngi jéggulu nag. kàddu yi mu yëkkati ci kanamu sëriñ bi ndax am murit kat daa war a mel ni am néew ca loxoy way sang ya nga xam ne du leen aay benn cëram du xam waxtu fu ñu koy sang du xam fu ñu koy suul kon nag murit moom bu teewee fi kanamu sëriñam kàddu gum yëkkati ca du kàddu ndigal kàddu mooy la waaye kàddu gum yëkkati nag ca muy kàddu ndigal nag dañuy topp ndigal rek nan ñu dimbali nag saxal ñu ci baatum ndigal bi ñu man caa nekk di ko jëfe te lu nuy tere lu ne ñu bañ ñu faa séen waxuma di ko jëfe nag kon nag Mbàkke jërëjëf sëriñ Moustapha Fall Fallilu nag mi ngi nii nee bu sëriñ Fall nuyoo moom nuyoo na sëriñ Fall nee liggéey bi nag Mbàkke ni mu toll nii yàgg na koo doon da daan doon luy ñëw fii am lu dem njaareem la daan dem njaareem demaan na njaareem muy ñaar fukk ak juróom-ñett yi daan dem loolu fi la ko Cheikh Rafal bàyyi woon ñu daan ko def lim bii moo yokk waaye lee bee moom yàgg na lool ñaar fukk ak juróom-ñett liggéey bi mi nii kon nag mbakke nag ñu ñaanal nii àdduna bépp am jàmm mbas mii fi ne la ci waxoon rek ndawal suñu borom la luñ ciy def rek sa jëmm jiyee tax ñu koy def yow mi leen bëgg mbakke loo dégle ànd nañ ci yow. ca am nañ yaakaar ci bu baax itam lii dafay jóge léegi dañ koy dégg rek kon nag sunu borom yàlla na la fi doolee yàggal ci barkeb Serigne Touba barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall ñi ngi sant bu baax Mbàkke cay gërëm di jéglu bu baax nag di jéglu bu baax nag waaw sëñ Cheikh nee na jërëjëf Fall kàddu yi rafet na lool. gën nañu soññ suñu bopp sëñ bu mag bi nee gën nañoo bëggati gën nañoo seen suñu bopp. bu yàgg. suñu xel dal na bu yàgg. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf ñoo ngi sant di gërëm. te te xam nañ sant nañ gërëm dong moo leen fi nekkal. ak ñaan nag. loolu la yokku teg loolu la. ñëpp toll la ilaha illallah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 fala kon euh, mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant euh, waa Lamp Fall waaye di sant itam Assalaamy TV ci taxawaay yu am solo yi nga xam ni euh, taxaw nañ ko jàpp ci liggéey bi Cheikh Ibra mu ngeen di sotle si yàlla leen taxawul boppam ci barke maam Cheikh Ibra Fall ndax xam nga wane gi liggéey bi dafa am solo ndax dina tax ki defoon benn fexe ba def ñaar ndax kaddu Cheikh Mouhamadou Mountakha kaddu soññe la Euh, kaddu yi sëriñ Fallilou Fall jëwriñ sëriñ Modou te kaddu soññee la yoo xamante ne bii mënta ñàkk su jibee ki ko dégg te murit dana ko soññ ba lépp loo xam ne bi ñu koy wone loolu rek lañ ci jublu ngir soññ ci murit yi di ñaan yàlla jëf ji daal jëfi Cheikh Rafal la ñu ngi ñaan yàlla na ñu yóbbaale ndax Cheikh Rafal mbiram kenn du ko audit su ko defee ñu man cee jàllaale ba ba faw rek la sëñ Tuubaa wax ne eh, Ibra Rafal daf ma rëcc na fa ma ko sànni ba fa xaayikoon bu ëllëg yoo xam du suuf te foofu kenn sëñ Abdou Baax mun Muntaxa daaw bi ñu ko jëbalee liggéey bi fii daf na wax ne lim gëm moom te jàpp ko mooy li suñ borom dig li suñ borom dig jullit ñi ci ak payor fam leen yemale fa lay tàmbaleeg Cheikh Ibra kon Cheikh Ibra moom kenn xamul fan la waaye waxi ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim keroog bi am ku ko ne ca njaarim